asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu santee yàlla ba pare ñu ngi julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur di nuyu nag mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a safoo RTT TV di nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi noonu la ñuy def daal di jàll ba prison daal di ñaanal ñi nga xamante ni ñoom la caabi féete ginnaaw ñaan yàlla yal na leen yàlla jële foofu ñu dellu si waat ci seen kër njaboot jàll ba ci ñi nekk ci lali hôpitaux yi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla fëgg seen bopp bañ a kenn ba ci ñi ci biir kër yi feebar ñoo ngi ñaanal ñaa ñëpp yal na yàlla fëgg seen bopp bañ a tëral kenn ci barke Seydina Muhammad sangu-sang yi ah di wax nag tey ñoo ngi waat ci seen émission bi nga xamante ne mooy émission bu mag bi di ëttu kër gi ñu ci daan àndal ki nga xamante ni mooy nguy faamala li ngir moom itamit ñoo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla fëgg boppam ndax fii nga fii dafi daan teew ñu koy ñaanal yàlla yal yàlla fëgg boppam ba mu dellusiwaat ci liggéeyam ñu def ko comme ñu ko naan defee ci barke Seydina Mohamed sang-sang yi nee naa leen sama émission du ma ci wéet benn yoon nag ndaxte saa su nekk ñu ngi ciy ànd ki nga xamante ni moom mooy Fatou Mbegere Seck di ci ànd ki nga xamante ni moom mooy euh, benn kante may jox soxna si Fatou Mbegere Seck nga ak mbokki téléspectateurs yi nga nuy leen euh, asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Thiès mbokki àdduna ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di jox seen wàccuwaay rawatina waa Thiès benn dëkk ñaari gaar di la nuyu yow itam sama waa plateau bi maa ngi lay nuyu Absa ni nga def sa bëla baax na mbenn Kanté sanu rakk ji macha allah maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ñaanal euh, euh, soxna nguy faama yal na yàlla fëgg boppam ba mu ñëwaat ci palaasam ci kàttanu yàlla barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ginnaaw nag ba nu sant yàlla julli ci yonante bi ñu ngi sant suñu sëriñ bu baax ba Cheikh na Cheikh Sadbu doomu Cheikh Mohamed Fadel ak maamin taalibal xeer taali ab yi ji li ñu jël nuyoo bi teg ko ci xalifa généraux yëpp macha allah ñu séddale ko ci këru diine yëpp macha mm. allah. di ziyaar ñëpp nag. Mm. Ah, yal na yàlla doole jàmm te lafal ñu cet yal na ñu eggale ak suñu sago. macha bi am na solo Mbène. waaw asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di nuyu di leen ziyaar rawatina Cees kaay benn dëkk ñaari gaar di nuyu sama. naataango yi ab sa Ndiaye fan mbegere di am contentement bu baax seen plateau bii ngeen ma invité li ñaanal nag Mbuy Faama yàlla fëgg boppam. mu weer ba mun a dellusiwaat ci activité am. wasalaam. Ah, macha allah nuyoo bi am na solo torop te yow moom namoon nañ la ndax lii moom namoon nañ ko yaa gëj nañ koo def torop ah, mu mel ni tey tey ñu ngi ci ëttu kër gi di ci fas yéene waxtaane lu mel ni thème bi ñu indi tey mu mel ni xarit soxna Faatu ah, ndax ku ne xam na ne jamono ji doy na waar jamono ji metti na ba tax na kenn wóolootul kenn soxna Fatou ma doon bëggoon la laaj ni la tey soo doon tànn xarit nit ki nan nga ko nan nga koy tànne nan ngay gisa nit ni kii mooy sama xarit waa soxna ab sa Ndiaye euh, indi nga tem bu am solo boo xamante ni àddina sépp soxla nañu déglu lu mel noonu nga indi ndax dafa di yitte jamono dafa di lu doomu aadama yi soxla ñu di ko waxtaane muy lan xaritoo xarit nag nekk na loo xamante ni dafa doy waar mhm. ndax dafa lëndëm ñi naan nit dafa lëndëm nit dafa lëndëm moo raw kappi coupiru courant xarit nag boo koy tànn mënoo koo tànn ab sax mhm. waaw xam nga lu tax euh, jikkoom mënoo ko xam ndax dalay wan lii ba nga fooni loolu la mu dugg ci biir mi ngi gor say tànk looloo tax kenn mënu tànn kenn yàlla rek moo lay suturaal nga am koo xamante ni am xarit boo xam ne dina la comprendre yàlla nag moo la koy tànnal yàlla moo lay tànnal xarit boo xamante ni si yàlla moo leen ni boole ci lépp nag xam nga xarit seex la xarit seex la loolu la ñu desee comprendre lu dal sa sa sa sa xarit lu dal sa seex gis nga ni mu koy sentiree lu dal sa xarit noonu la koy noonu nga ko war a sentiree lu ko metti mu metti la lu ko neex mu neex la lu ko naqari mu naqari ko noonu la xarit di mel. mais mais nit ki tey jii comme par exemple nga ne Mbène Kanté mi sama xarit la. Mhm. ban jikko nga gis ci Mbène Kanté ba tax nga jël Mbène Kanté ni moomu ni sama xarit la. lan nga gis ci moom a xarit lan la war a mën a jariñ maroomu tam ba tax mu ni kii sama xarit la. waaw day fekk lu mu nekk xam nga bëri na ci xarit yoo xamante ni xarit yoo xamante ni ay kii la nu mu tuddati euh, ñoo xamante ni dañuy ànd ak yow. àndandoo maanaam. su su neexee ñu ànd ak yow bu naqaree ñu bala fa kooku du xarit mm-hmm. ki ngay tànn kay mooy koo xamante ni day mel na nabu ñang bu mettee mu ànd ak yow bu neexee mu ànd ak yow foo dugg mu dugg fa ak yow man noonu laay tànnee xarit te it du la weer mm-hmm. man bëgg naa loolu ci xarit fa ab sa ab sa xarit day am sutura dama li ma la wax rek ni la xarit seex la mm-hmm. lu metti kii war naa metti ka ca des. loolu am na waaw mu mel ni comme son dégg soxna Fatou wax muy xarit da ngay am sutura lu metti kii war naa mm. metti ka ca des ndax dañ ne xarit moom ñaar la wala xarit boobu ñett la am na ñoo xamante ni dañ lay tànn mm-hmm. ànd ak yow te yàlla rek tax am na ñoo xamante ni dañ lay gis bëggal leen seen bopp am ñoo xam dañuy dugg ci yow ngir intérêt am na ñoo xamante ni nag dañuy ànd ak ngir yow ànd ak yow ci dëgg mm-hmm. waaye soxna Mbène dégg nga li nga xamante ne moom la Fatou Mbegere wax mu ne xarit moom yàlla dalay boole moom ndax xarit seex la yow loo wax ci loolu. waaw Absa Ndiaye li Fatou Mbegere wax dama ciy sawar a tontu. Mm-hmm. comme li mu wax ci xarit li mu wax dama koy dëggal. am na xarit yoo xamante ne nii dañuy ànd ak yow bu ñu ànd ak yow dañuy xool loo xamante ne bu ñu paree dañu lay suruxalee ci kàmb. Mm-hmm. moo tax ñu ne xarit amoon amoon na mais xarit léegi amatul. Mm-hmm. ndax waaw xarit léegi. amatul koo ci yaakaar ni kii sa xarit la boo ko wanee ginnaaw mu yàq la léegi looloo am ci dëkk bi léegi xarit yi dañuy yàkkante kenn jarutoo wóolu pour man jigéen yi kan jigéen ak góor ñëpp laa ci yemale kan moo war a nekk sa xarit sa bopp ndax parce que xarit amatul koo ci waxal léegi su paree bala ngaa génn di ko fekk ca marché ba ñu teg ko ndax parce que xarit day bañ yow comme yow ma ànd may ànd ak Fatou Mbégué tey ma moom mën na maa ëppale mën nay def loo xamante ni du ko def mën nay am loo xamante ni man mënuma koo am su ma ñëwee ànd ak moom ànd ak moom di ko sugg di ko jaamu di ko jaamu ba génn ba am li ma bëgg ci moom su ma génnee yàq naa Fatou Mbégué kooku ndax xarit la kooku du xarit nit ñi dañ naan booy ragal ragalal sa noon bu ragal sa noon de booy ragal ragalal sa xarit ndax jamono jii xarit moo ko moo moo toj dëkk bi ndax sa noon lan lan lay lan lay xam ci yow sa noon day xaar ndog-ndog am ci yow mu reetaan la muy xaar ndog-ndog am ci yow mu toog di la jowee mais sa xarit lu mu xamal weer la ko booy ragal ragalal sa bu ragal sa noonu ragalal sa xarit ndax xaritu léegi sii ab sa njaay ñi ngi toj dëkk bi dangay gis yow nga am koo xamante ni yow mii ñu xam ne kii amal na la njëriñ kii mi ngi lay defal safaar maw la ñu ñëw taxaw yàq loolu ndax lan ndax bëgg ñëw suufu yàqal la surtout jamono ju tas jii jamono jii xarit yee ngi toj dëkk bi. koo yaakaar ni kii sa xarit la. non bis boo ko waxee sa sutura bu subaa dootoo ko defati de. <laughs> dañ naan xiir gi dalay dal xiir gi dalay dal kenn bëggul kenn. Ah, ku ne sa bopp bëgg am sa njaay. ah macha allah loolu am na solo kenn bëggul kenn ku nekk sa bopp nga bëgg dégg ngeen benn kàntal wax moom nee na kenn bëggul kenn ku nekk sa bopp nga bëgg waaye nag benn ba tey man damay ñëwaat rek ci xarit. ndaxte am na ñoo xamante ni ñi ngi ànd ak nit te yàlla rek tax ñi ngi ànd ak nit ci dëgg xarit am na de xarit ak am parce que nit ki jàpp naan na ki ngay àndal tam mën na wax dëgg mu nga wax ko dëgg di la sàngal sa sutura ëmbala sa sutura ngay ànd moom di dem fu nekk ndaxte gis nga dama naan am na ñoo xamante ni liñ koy waxee comme am am na ñoo xamante ni naan kii ba ma dalee ànd ak moom depuis ñu nekk xale ba tey man ak moom ñooy ànd nga gis tey Fatou Mbégéré mi wala nga gis tey mbenkante mi palaasu liggéeyukaay boole leen kooku sa xarit la parce que dañu xarit ñett la xarit bi nga xamante ni ba ngeen nekkee xale ba tey yéenay xarit bi nga xamante ni kooku dafa la gis sopp la bëgg rek te yàlla rek tax xarit bi nga xamante ni sa bërëb bu liggéeyukaay sax mën nga fa am xarit koo xamante ni mën nga sëkk ak moom loo xamante ni ki nga àndaloon ba mu nekkee xale ba ngeen xale ba léegi mën nga sëkk ak kooku noonu loo sëkkut ak ki nga xamante ni moom nga àndaloon bi ngeen nekkee xale ba tey ci lépp rek dëgg lal ko fulla ak fayda ngeen ànd te yàlla rek tax mbenn xarit am na ba tey dañuy waxtaan ci loo xamante ni xarit lan la mën a jariñ moroomam xarit lan la mën a jariñ moroomam parce que nit ki sax sooy ànd ak moom war nga am loo xamante ni war na la ko mën a jariñ yow am loo xamante ni war nga ko ko mën a jariñ soxna Fatou waaw xarit moom li mu war a mën a jariñ moroomam bari na mhm. nit nitay nitay gayndeem ku nekk sa nawle mooy sa gaynde dañ koy faral di wax mhm. waaye xamuñu wax bi lu mu tekki lu tax muy sa gaynde mooy lu mu dugg lu ne dugg ca ba mu jeex tàkk nga ànd ak moom ci ngor ànd ak moom ci diine ànd ak moom ci sutura noonu la ñuy tànnee xarit xarit gis nga xarit boo koy wut dëgg dëgg dëgg teste ko teste ko nag ci lu bari xarit yàq na lu ne waaye defar na lu ne mm-hmm. gis nga man dama ragal nit li ma leen wax sànq ci sama njëlbeeni wax nee naa la damaa ragal nit ndax nit dafa lëndëm comme coupé de courant. Hmm. waaye am na ci ñoo xamante ne ñeme leen yàlla moo lay def loo loolu. Hmm. yàlla moo lay ñemeloo mbenn wala moo lay ñemeloo aw saw aw bokku am na ci yoo xamante ni man day sekk man soo amee xarit nekk leen benn xoolal jox ko sa lépp ba xam ndax dina la weer wala du la weer. Mhm. noonu lañ koy testé boo génnee dégg ko ci mbedd mi rek bàyyil kooka mhm. te xam ne bu ëllëgee lu mu la xamal dina la weex mhm. baa boo boo bu daal gis nga paaka ba lay daas am na ci xarit yoo xamante ni ñoo lay rendi xatit ñoom ñoo koy denc ñooy féete ginnaaw jam la ginnaaw paaka ginnaaw ñoom rek ñoo ko mën xam nga li naan noon privé ci xarit lay jóge yal nañ ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal pour te diir nit mi ngi taxaw nii di la xool di la ree ngeen di kaf di ree di ànd di dem di ñëw fekk sa noonu la nga ni kii sama xarit la sama xarit keuse la yow nga ñëw rek nekku dof di ànd ak moom lu nekk nga dugg ci lu ne nga dem ci lu ne nga ñëw ci xoolal booba ma nga lay fexeel fexeel boo xamante ni boo ko xamoon doo dootoo sax tëdd ak moom benn la banaan yaa ngi wax ak moom am na xarit yoo xam ne nag ab sa mhm. mën ngeen fanaan benn lal mm-hmm. barke Seydina Mohamed mën ngeen fanaan benn lal mën ngeen a bokk lekk ba suur mën ngeen a ànd sax rey nit suulaat ko ba mu jekk boo ko génne wut du ko génne man kooku laa gëm ak sax macha allah loolu am na solo waaw sax na nee na li xarit dëgg dëgg dëgg xarit bi nga xamante ni moom nga war a àndal dëgg dëgg mën ngeen a defandoo lu nekk ànd sax rey nit tuur ko ñëw toog kenn ku nekk jàpp sa njàmb te kenn du wax sa morom def na nangam jàpp naa ne loolu tamit tax nañu naan xarit ndax xarit moom bu demee demee ba mënalu la dara xarit ba bu demee ba mënul la mënul dimbali ci dara mënul la jàppale ci dara mënul la dolli mënoo koo dolli kon jàpp naa ne kooku du xarit mbenn mu mel ni am na ci ñoo xamante ne dañ naan sax man de sama xarit bi moo gën gënal sama doomu nday ndax kii sama doomu nday la waaye kii de moo ma a sax ki ma bokkal nday moo ma gënal ki ma bokkal ndey baay ndax li may jariñ sax ki ma bokkal ndey jariñu ma ko wala fa ma féete ki ma bokkal ndey ak baay féetewu ma fa ñu ànd ñoom ñaar di weccante ay ay ay message ñoom ñaar di waxante ci téléphone ñoom ñaar di diisoo ñoom ñaar di waxante seeni rek ñi ngi ànd sax bay dem ci sëriñ fu nekk ñi ngi fay ànd ñoom ñaar di fa dem tey bis ñëw rek nit jaxase leen wala suwaat kenn wax xamal waxal moroomam dara rek seen diggante jaare fa yàqu ba kenn ku ci nekk loo waxaloon xamaloon sa morom nga daal di koy weer jàpp naa ne loolu tamit est-ce que tax nañu naan xarit waaw Absa Ndiaye xarit dañ naan dalay lay mënal damay del si li Fatou Mbege da wax rek xarit dalay lay mënal am na xarit yoo xam dañuy yàq ah ki mel ne Soda de dégg naa ba ma ko xamee yàggul de ci defal karam la ñu xamante defal karam ak defal ay greffage cheveux mais dafa mel ne ku ma bokkal ndey ak baay Soda Tall tey boo ñëwoon tey naan ko benn kante lii dootoo ko defati. te maa moom ba ñu xamante yàggul rakkam laa xamante loolu soo de taal rakkam laa doon àndal mais rakkam ba ma ko ba léegi soo de mel ne maa ngi moom dañoo bokk ndey ak baay lu muy dugg dama koy xam man lu muy dugg dama koy xam soo daf may xulool fu ma fekk fu ma nekkul man nekk ay nit ay ñëw dox ba wax wax si ma ko kon kooku mën naa jàpp ne xarit la mais xarit dañ koy tànn. dëgg la ko Fatou Mbengue lay waxee. man Absa Ndiaye lan moo tax ma ne xarit amul dama ko dund. Hmm. man damay héberger dama daan de samay xarit. nan di leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan mais samay xarit tey ñoo ma fakastal ma daanu. Hmm? moo tax man la xarit amul. li ma wax rek mooy ñëw kuy ragal bu ragal sa noonu ragalal sa xarit. Hmm. ndax jamono jii xarit mooy tëj dëkk bi. am sax xarit day xool la nga xam na yow moo metti ci yow day ànd ak yow di defandoog yow hmm? mën naa sax ba a defandoog yow di toogandoog yow mais la muy def après yow moom lay teg sa der kon kooku est xarit la hmm, déet boobu taxuñu naan xarit xarit fu ñuy yàqee day ñëw yàq day ñëw xeex ak yow ci hmm, loolu fu ñu waxee diw ab sa njaay day ñëw ni ab sa njaay nekk fi bu wax waxam fu ñu yàqee sa der du fa toog yàq sa der mais léegi xarit léegi sii iñaanante moo nekk seen i biir bëgguñu kenn raw kenn sa morom ñu wax fi yow ba ñu ba ñu ñu gën yàq sa der tas la nag ci dëkk bi te yow amaana sax yow ñooñu di yàq sa der ñoom yaa leen gën seen yowu tànk sax moo leen gën moo tax man la ab sa njaay xarit amatul ku mel ne Soxna Tall de xarit la mais xaritu léegi sii mais boo ne na leen moytu de man dama koo dund moo tax ndeysaan looloo tax ngay man amatuma xarit mm. amatuma xarit ay ànd man pour man mënoon naa wax ni ñooñu ay àndandoo rek lañ. ndeysaan am sa Thiès waxuma Thiès sax ah, Sénégal dafa toj. Eh. xarit yi toj dëkk bi da gis koo xamante da nga koy ñëw présenté sa jëkkër mu nekk sa xaalis mu suuf ko doxaanante ak moom. moo eh. takk am ja. loolu day am moo tax ah, loolu moom bari na ci dëkk bi. waaw dëkk baa allah loolu moom toj nañ dëkk bi. wallaay li nga wax rek. xarit yi toj nañ dëkk bi dégg nga mbeen nee na xarit yi toj bi ndax da ngay présenté nit sa jëkkër mu ñëw suuf la nga ñëw présenté sa nit sa sa copain mu ñëw suuf la ba tax na kenn wóolootul kenn waaye xarit nag ba léegi am na man damay taxaw rek ba léegi ci xarit am na am na ñoo xamante ne ñi ngi ànd te yàlla rek tax am na ñoo xam ne ñi ngi ànd ak yow bëgg la bëgg sa njaboot bëgg sa jëkkër te soxlawuñ ci yow dërëm am na ñoo xam ne ñi ngi ànd ak di jël seen alal di ko def ci yow xaaruñu ci yow dara kon am na xarit am na dafa am ñoo xamante ne nag dafay dañuy ñëw li may faral di wax rek am na nit moo ngi ñëw dugg ci dugg la xam xam sa vie privée nga jàpp ni kii sa xarit la fekk dafa am lu mu wut si ci yow kooku soo ko jàppee sa xarit wax ko sa vie privée yëpp lam la ngay dund ci sa kër yëpp mu xam ko la ngay dund ci sa jëkkër yëpp mu xam ko kooku gagné sa confiance kooku bu la waree rek dangay ngay am problème boo ko présenté sa sa sa copain mu nungu ko dangay am problème parce que loolu jàpp naa ne li loolu moo ëpp sax ci société bi mm-hmm. bëri na fi buñ ci doon waxtaan fii ba suba duñ fi jógee xarit li muy def moroomu xaritam bëri na man gis naa koo xamante ne tey ji xaritam dem na ba jëkkëram di ko takk ba jouru takk ga te xamul ni ko jëkkëram xamul ni moom moom moom xaritam lay takk yàlla def ñu jël xew ba magale ko xale bi te xamul ni ba tey kooku jëkkëram moom lay takk naka te jëkkëram moo moom jëkkëram kooku lay takk ci jour xew bi ci la soog a xam ne moom kii xaritam bii kat ñu jël ko magale ko ko jëkkëram ndekete moom moo koy ki koy takk xoolal lu metti loolu rek mu nekk lu metti mu nekk lu ñuy dundu jigéen ñi lu ñuy dund ci société bi muy ci góor ki nag muy ko jigéen da ngay gis ku góor présenté kii copain bi présenté kii gelam mu ñëw suufu ko nungu ko di ko doxaan suuf bëri na fii li ñu war a waxtaane ci xarit bëri na mais nag ak lépp nu te doon rek xarit am na am na ñoo xam ñi ngi ànd ak nit ki te yàlla rek tax li may wax rek am na ñoo xamante ni ñi ngi ànd ak nit di ànd ak moom ci dëgg ndax dama naan xarit soo demee bay wut xarit nit ki doone ne yéen a yem jikko mais da nga jël sa jikko nga jox ko sa xarit mm-hmm. nga ànd ak moom ta yàlla rek tax mm-hmm. li ngay ànd ak moom te yàlla rek tax mooy bu nekkul ci dëgg nga di woo ko teg ko ci dëgg teg ko ci yoon yow it boo nekkul ci dëgg mu woo la teg la ci dëgg ndax jàpp naa ne nit noonu lay ànd nit kenn ku ci nekk seen ci yeen ñaar war ngay wax ak moom sa moroom dëgg goo xamante ni bu wéetee ba tëdd ak tëdd ak dina ni kii de lim ma wax bàyyi naa ci xel bu baax ndax kii lim ma wax kenn mënu koo dindi xarit nii lay def nga nekk ci problème mu jooy la la ko nga jooy mu jooy la la ko nga nekk ci bànneex mu ànd koog yow ba mu jeex tàkk kooku jàpp naa ne bu ñuy wax xarit kooku moo tax ñu naan xarit benn xarit am na ba tey dafa am ñoo xamante dañuy ànd yow ngir àndu intérêt bëri na fi. ab sa doguma la sax. mooy àddina bi léegi dafa tas. bon damay dellusiwaat tuuti ci sa question bi nga wax ne euh, am na sa sa am gis nga xarit boo xamante ni dafa nangu jëkkëru. xaritam. Mm. Euh, lu ma gis la man man jaxran kenn nettaliwu ko. koo xamante ni ñoom ñaar ñooy ànd guddi ak bëccëg. pour te dire ñu baal ma sax ñooy solante ay tubéy lépp ñoo koy defandoo ñooy solante yére lu kii am kee am na ko maanaam comme ay seex xam nga kooku dangay xalaat ni sax euh, xalaatul ni mi ngi sekk sa jëkkër dara bay am ba daan ma ngay ma ngay takkanteeg moom mm-hmm. xalaatoo ni mu ngi farantoog moom ba takk war caa am xam nga doo ko xalaat mm. parce que la ngeen sekk la ci àdduna petit ba grand man ab sa jomm na ma sama xarit ma toog ak moom may xool sax jëkkëram su fekkee ni gor nga mm-hmm. su fekkee ni gor nga ah. yaa ngi may dégg bu baax bu fekkee ni gor nga deretu gor mooy daw ci sa yaram bu ca dañee rek deretu jaam moo cay nekk mm-hmm. ngay doxal nag yi fi jaam ba ilaa yow mil basar jour boobu bi ma yëgee takk gi man xaw ma ko naanewuma ko ndox fenn waaye surprise boobu nga xamante ni xale bu jigéen bi def na ko. Mhm. muy sëy ak jëkkëru xaritam boobu. mu nekk lu metti mu nekk lu metti kaw tey di ko dund ba tey dafa mel na ku dof. Mhm. yamul ci rek ne xaritam la rek nii de xataraayoog yiir yamu ci de dafa mujj dof. wallaahi lan moo ko ko teg xaritam. Mhm. daf ko wor wor bu metti ndax foogoon na ni àddina du yàgg ak li nu sekk lépp mu ñuy jël jëkkëram di fanaanoo moom. maa mu def ko sax ci defin bu rafet. maa mu def ko ci defin bu rafet. kenn mm-hmm. bañu ko gis nga xarit dem nan ba bokk jëkkër. wallaay waaye na rafet xaritam may ko jëkkëram. waaye da ko suufu. Mm-hmm. da jël paaka jam ko ci digg ginnaawam. ba mu farfa dee. kooku deewul de xam nga lu mu def dafa dof dafa kandasu. te ba tey mi ngi dund ak waaj. kooku gor la xam nga kooku du gor. doom bu mucc am tey yaag sa xarit boobu ngeen bokk yaag ak ak ay doomam ngeen bokk baay mën naa ne xam nga mën naa ne. Hmm. ndax yaag xarit bi bokk leen ndey baay yàlla moo leen boole ci Adama ak Awa da ànd ànd gor ba àddina sépp xam leen mënoon na ko jomma def kon xam nga ni xarit amatul ci benn paar xarit am na ndax am na ku ñëwoon di suufu jëkkëram di suufu di ko di ko doxaan mu ñëw ñaari version laa la wax. Mm-hmm. kee marié na kii dafa ñëw nag koo koy gor gi si. Mm-hmm. wallaay am nañu mu ñëw ba ci man mu ko mu ñëw ba ci moom mu ni ko damaa bëgg ma invité la mu ni ko foo may invité mu ni ko dama bëgg nga ñëw fekk ma fii béréb bii ñu toog waxtaan dama dama laa soxla ci sa xarit maanaam piège dugg na. Mm-hmm. ba mu demee ah for na ni xaritam la koy doyee xëy na dañu jotee dara boog mhm. ba mu demee ñu waxtaan kaf mu jënd glace ñu lekk naan mu jàpp loxoom mu ne koy lii ngay def lan mu ne ko dama laa bëgg ndax bi ngay ñëw ci sama xal bi ma lay xamee ba tey moo yow laa gën a sentir que moom daf ko saaga ndey ba pare kooku wëlbatiku dem ba ci xaritam. Mm-hmm. mu ko wax mu toog mu toog jëkkër ji toog mu ne ko daf ma doon jéem a jàpp gel. allahu akbar. te maag yow loolu xaju sunu diggante kon yal nañu yàlla mu musa seytaane wallaahi amiin loolu yépp seytaane koy tënk nag mm-hmm. ak xaritoo boo xamante ni ànd bu bon ak bu sincère mm-hmm. man bu sincère balaa bëgg man noonu laay ànd ak nit mhm. te yéen ñi toog loolu ngeen bëgg keneen keneen loolu la jigéenu Sénégal ñu ngi dund loo xamante ni mooy lii ci xarit mhm. mu metti torop ñu koy dund ñii di amee cancer di dee xam nga am na ci ñoo xamante ni sax da nga naan am na loo xam ne soo ko dundee sa danga naan man ma mm. préféré ma bañ a am xarit ah. mais jàpp naa ne nag nit kuy dem faaw nga am xarit mhm. parce que jamono ji moo moo moo tollootul foofu ndax dañ naan soo amee sa naqar war nga mën a dem waxtaan ceeg koo xamante ni dina la ci génne mhm. parce que loolu ak àdduna ñoo am mhm. ñoo ànd mhm. da ngay bëgg des fois des fois nga am na xar te jàpp naa ne naqar boo mënte am war nga ci mën a am koo xamante ni war nga mën a waxtaan ak moom te am na de am na ba ci xarit bu góor sax léegi nit ñi dafatuñ de am na ba ci xarit bu góor léegi nit ñi xale léegi jigéen ñi góor ñi dañoo yeewu du question xarit de dañuy wut àndandoo àndandoo la ñuy wut mais dañu wut xarit boo xamante ni dañuy jël li nekk seen xol yëpp ñu yullil la ko léegi nit ñi dañoo yeewu am mm-hmm. kenn wutatul xarit boo xamante ni da koy ñëw di ko wax sa biir privé mm-hmm. amatul léegi amatul ndax dëkk bi moo toll bi léegi moo toll foofu xarit xarit amatul ab sax li ko Fatou Mbégué waxee am na ñu baax de mm-hmm. am na ñoo xamante ni ay góor dëgg lañu man gis naa koo xamante ne xaritam la may jëkkëram mu nekk ñaaree la mhm. ah waaw ñaar ñooñu léegi buñ nekkul ay xarit yu sincère est-ce que dina am déedéet moo ko dem doxi ko takk ko indi ko mu sëy si wallaahi léewul xarit bu sincère la léegi nit ñi amatuñu man de man mbeer amatuma xarit am na ndoo laa ndax dafa moom bay jël sama biir privé bii man samay xarit sax xamul duñ ma xamal ndax man jinax laa damaa bari pax waaw ah, waaw man kenn xamalu ma man su may dem man cub maay dem su may ñëw man kese maay ñëw dem toogaat kan moo may xamal ba di ma weer. kenn. damaa gis ñoo xam yow comme que yow buñ la xamalul lañ lay waxal buñ la xamalee foo jëm. xaw ma ko wallaay. est-ce nga xajati ci dëkk bi. Mm. dootoo fi xajati am sa xarit amatul xarit yi ñooy toj dëkk bi xarit yi ñooy toj tas sëy yi ñooy tas relation yu sincère yi ci dëkk bi da ngay gis ndey ak baay sax bu am problème sa xarit ñëw xam ko ba mu gën a tas ba ñu génn ko ca kër ga. kon xarit amatul. maa ñu soriñtu la ba nga génn. ba nga ba nga xool ak kandaf dañuy gis ngay dem ak ñëw ñu yaakaar ni. <laughs> yow yow yow dafa mel ni da nga ànd ak benn kante ci lu mu wax. ah mooy yow dañ lay sëriñtu ba nga génn. yow yow des fois da ngay ànd ak benn kante ci lu mu wax. des fois da ngay ñëw ci ci ci loo xamante ne leer na la ne am na xarit am na. am na moom bul topp benn kante ci xarit amul xarit am na. gis nga kii dafa am lu mu dund. dafa am lu mu lu mu fu mu jaar. dafa am lu mu dund dafa am foo xamante ne dafa fa jaar. loolu moom am na plein waa toog waxee ni mu waxee mais yow xam nga ni xarit am na parce que am na ñoo xamante ne tey bu ñu amee lu leen problème sax suñ ko amee ci seen néegu sëy sax jàpp naa ne xarit bi sax mooy nekk ki leen ciy génne ndax dama ne leen sànq xarit bi nga xamante ni moom mooy wax ak yow ci dëgg xarit bi nga xamante ni moom mooy wax ni la ni nga war a toogee ci sa néegu sëy fekk la nga joteeg sa jëkkër mu ñëw dal ci sa kaw ne la sa jëkkër ji sa sang la danga ko war a jaamu ni nga war a def ak moom nii nga war a comporté woo moom jàpp naa ne kooku xarit la xarit bi nga xam ne day woo sa doom di ko wax ak di waxtaan ak moom hmm. di ko delloosi di ko conseillé def ko kon doom ba mu jur dama ne kooku xarit la xarit am na. jamono jii dañoo nekk ci jamono ñàkk am. mais yow dafay mel ni dangay dangay fekk si waat benn kante ci li muy wax. yenn saa yi mbeen dafa am foo xamante ni daf ma fay laal dafa xaw a bandi dafa xaw a saay-saay waaye am sa li ma lay wax tuuti xarit am na dama lay fekk si. ndax boo amee problème sa néegu sëy mm-hmm. jàkk ci sa néegu sëy baa nga toog jàkk ci sa njaboot am nga koy woo moo lay conseiller. Mm-hmm. man de am naa ko man. man de man su ma jaaxlee. déglu ma ba ma pare. su ma sama néegu sëy bu ma ci nekkoon wala ma am problème bu ngan na ngan. Ah. sama yaay nekkoo sama papa laa ciy waxtaan wala ma waxtaan ak ba tey xarit la ba tey xarit la sa papa xarit la. Ah, waaw waaw léegi léegi ñooñu. ba tey xarit la léegi sën nañ ngeen di mi ngi noonu mooy weer seen bopp kon. mi ngi noonu nag macha allah. ba tey loolu xarit la ba tey loolu xarit la at sa. Mm-hmm. Mm-hmm. man am naa xarit bu nga xamante ni su ma nee ko fekk ma fii dina ma fekk bu ma nee defal ma lii dina ma ko defal te ma sàmba du ko yëg ma demba du ko yëg su ma nee ko damaa am problème sama néegu sëy wala ci sama njaboot balaa maa jàpp kenn moom laay njëkk a jàpp waxtaan ak moom ba mu leer nañ ñu tëj ma sàmba du xam ma demba du xam papa xamul yaay xamul parce que leer na ma leer yàlla ni bu ma ko waxee sama soxla dina ko lijjanti ba mu ne koroj ne kocc ñëw indil ma dossier bi mm. man kooku laa wóolu man kooku mooy sama xarit ñama daan àndal démb nag ñooñ lay àndal ba tey gis nga ku bàyyi say xaritu démb bu ëllëgee nga jàpp sa xaritu tey bu xaritu tey ya musee dinañ la laaj ana ñaar say xaritu démb loo leen di tontu banaa leen jàppal ni ëllëg dina la ba man damaa bëgg kuy jàpp démb damaa bëgg xaritu démb gis nga sama doom yi sama xaritu démb yëpp leen xam damay wax ak ñoom di jëflanteeg ñoom di dégganteeg ñoom whatsapp parce que lan ñoo pëteendoo grandoo te dara zéro xoolal amul dara ñaawul ñu defante lu baax mm. yaa ngi dégg loolu mooy xarit xarit am na de xarit dina la féet féete foo xamante ni ñu baal ma ci kàddu gi ndey ak baay sax du la fa féete mm-hmm. naam suñuy waajur la nag ñu ngi leen di tatagal bu baax macha allah di leen jox seen wàccuwaay bëri na ci xarit yoo xam ne fu ñu lay féete billaahi wallaahi taalaahi mbokk ya nga bokkal sax duñ la fa féete duñ la fa parce que da ngay dindi sa stress ci moom. ci ay xaritam. ci ay xaritam. mais nag ki nga xamante ne xam nga xam nga wax naa la ko sànq sama commencement wax nee naa la. ki nga xamante ne day ñëw ne man kat sama xarit bi gën a sama doomu ndey ji nga xam ne moom laa bokkal ndey ak baay mais tey bis di ñëw yéen ñaar ngeen féewaloo mais su boobaa est ce que jar na kenn dem ba yëg seen problème yéen ñaar est ce que mënu leen koo régler ci seen biir ba nga xamante ni kenn du yëg ni ñaawoo ngeen ngeen xool lu mu gën a rafete waxtaan parce que nag bëñ ak làmb ñëw dëkk ndagam ñi nga xamante ne ñoo bokk benn lal ñooy jotee waxantuma laa xarit waxantuma laa ki nga xamante ne yàlla daf la boole ak moom rek kon jàpp naan lépp lu dikk rek am na noo leen ko mën a réglé moo gën weeronte bi daal man de man de Absa Ndiaye samay xarit